Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 17 septembre 2024 suñ fa jógee dañuy dem foofa ca Thiès fekk fa président parti bi di UNR Union pour une nouvelle république di Mouhamadou Lamine Massaly ginnaaw Aminata Touré bu mu defee sorteem nag moom Massali dafa daal di remettre ki nga xamante ni mooy Aminata Touré ci place am en tout cas réponse daal bu tranchante la ko daal di jox ou nak bi nga xamante ni kii di Aminata Touré yëkkati na ay kàddu Massaly daal lan la ci wax nee na quelle honte lii nga xamante ni amorphisme politique bi nga xamante ni dafay rendre bien compte lii nga xamante début de la fin ginnaaw Aminata Touré du Rus du RS amul gàcce ginnaaw bi nga xamante ni moom moo bokkoon ci vaillante Amazone yi nga xamante ni mooy yu APR yi di tenansu li nga xamanteni moy forte dal di soutenir kii nga xamanteni moy mooy Macky Sall ginnaaw bu mu doonee benn baobab bu effondré wu amatul dal de combativité bu dul singulariser li nga xamanteni dal mën na ko jappé ay colibé lampadaire jaarle ko dal ci grand sujet yi nga xamanteni mën na impliqué li di régime bi nga xamanteni dafa décliné wu Mimi Touré mom ci boppam gatché la ginnaw bu mu déclaré que kii di président Macky Sall tiréwul benn fitel lu dul jëmele ko dal ci félonie bi nga xamanteni ni du dara lu ay fan yu toy xep ginnaw nak lepp lo xamanteni mën nañ ci sukkandiku muy ay responsable comptable suñu jëmee ci gestion président Macky Sall en tout cas lepp lo xamanteni ni diabolisation la mënul jall fi ginnaw bi nga xamanteni dembu mom mo moo contre ki nga xamanteni moy premier ministre bi fi nek tay di leaderu Pastef nekkoon compagnie aujourd'hui tay ki nga xamanteni tay mom lay défendre ginnaw bi nga xamanteni tay lepp luñu mëna ñu luñ ci mëna a sukkandiku benn haine viscérale la jëmale ko dal ci ki nga xamanteni moy président Macky Sall ndax té digéré wul ben yoon li nga xamanteni tay moy élection présidence à la présidence de l'Assemblée nationale bi nga xamanteni lañ ko jox Amadou Mam Diop mom Aminata Touré dommage que du dara lu ben jigen politique bo xamanteni bu énergique la jaarale ko dal ci li nga xamanteni ni dafa rejoindre lii di Diomaye ginnaw pour lan gagner lepp lo xamanteni moy ay points jaarale ko ci popularité ginnaw bu mu perdee lépp loo xamante ni dafa sukkandiku ci résurgence politique ak sukkandiku ci ëllëgam loolu dal mo tax tay mu taxaw mu doon benn base boo xamante ne bu débilité la ànd ci ay mansu militants yoo xamante ne dañ koy suivre te gisuñu dara lu dul lii nga xamante ne mooy ay indices yu mu porté jëmale ko en avant politique ginnaaw bu mu passé lépp loo xamante ne mooy avenir am di usurer temps am daal di koy érodé en tout cas lépp loo xamante ne daal kii di Aminata Touré doon na ko du doon dara lu dul benn claque murée jaarale ko daal ci kii di Diomaye ginnaaw bu mu doonee benn amorphe jaarale ko daal ci jàkkaarloog ay problème problème sénégalais mu war a sukkandiku ci benn turu chômage cherté li nga xamanteni moy mooy dund bi emprisonnement perspective jëmale ko dal ci sombre économie bi nga xamanteni FMI wax nako ko du dara lu dul benn sommeil boo xamante éperdument daf ko dal di réveiller pour mu secouer jaarle ko dal ci li nga xamanteni moy différent trajectoire politique ginnaw bi nga xamanteni lepp lo xamanteni mom ni Aminata Touré renié nako ko du dara lu dul lii nga xamanteni ne ben retrouvaille la duggal ko dal ci li nga xamanteni mom la tuddé Diomaye Rey ginnaaw joxewul ben ver euh, virginité politique muy élégance bo xamanteni la kanamu élégance ak li di sénégalais bi nga xamanteni ni kenn mënatu leen duppe ginnaw élection législative yi ñu jëm le 17 novembre bi dina départager lépp loo xamanteni ni tey mënoon nañ ko éprouver jëmale ko daal ci ay compassion yoo xamanteni dafa indi maanaam yërmande ci kaw sénégalais yi ginnaw bu mu joxé li di majorité assemblée nationale moom ci boppam moo enterré vivant li nga xamanteni ni mooy sénégalais yi ki ko xamle di Mouhamadou Lamine Massali président parti union pour une nouvelle république en tout cas nee na Aminata Touré daal gàcce la tey ci atmosphère politique Sénégal ndaxte moom mi nga xamanteni ni moo jiite woon listu Benno Bokk Dakar doon euh, principal défenseur qui du président Macky Sall ci projet am ci ay recrutement tay tey moom moo walbatiku ànd ak ñi nga xamante ne la doon xas di len xalat tay ba taxaw bëgg leen défendre en tout cas du dara lu dul haine bi dox ci digganteem ak kii di président Macky